te foo fekk koy wax ne man sant naa da dis na ñàkkul lu muy nemmi te foo fekk it ab tawatkat dun te dus gor loolul sant yow moytu ko muñ ak cant gan lépp loo mën di gis na sant xéewal na ngay sant kay muñ tawat nag ba ko muñ cant gan lépp loo mën di gis na ngay sant kay tawat nag ba ko na sant xéewal di muñ jëpp lor ngirum gaay yàlla yàllaa ngi nii soobu ko amaana nga gis gaay ñuy ree ko bég di sooxaale ay lor yu dul teggi